صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما ما الأبس والسفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيونغ لين دون نيو كوتينا تشترام أكسنتام تيجي تلتي زيار بي سيرين منتخا بشيرو باكي خالي جنرال دي موريت دي سيارو باخ سيرين شيخ اسماعيل xalifa Mamor jaara boroom saam di siyaare Serigne Cheikh tëdd xalifa Serigne Baara Xureja di siyaare Serigne Baara xalif xalifa Serigne Cheikh Baara di siyaare Serigne Fallou Mbacke Sam mu Serigne Cheikh Baara mu Serigne Baara Xureja Mbacke mu Mamor jaara borom saam bu ngeen déggee woote gi nag mooy bés bu mag bu tëdd bu ñuy def muy waacaayu magal di première safar bu ñu def ci Touba daru Salam jam ñaajo andi ak suñu kilifa bu baax di di Serigne Falilou Mbacke borom Sam ñukoy def at bu ne ah ren nak di 10e édition bi ah ñu ci wo goor jigen mag ak ndaw di ci wo mbalem tundu jam ñaajo me di ci woo mbalem euh, julitu yalla yi ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di woo itam daayira yi nga xamante moom lañ bokkal liggéey bi ku mel ni daayira xidmatu Lamp Fall bu Touba jam ñaajo ak euh, bu mel ni daayira Serigne Fallou Mbacké Sam mi nga xamante ne moo ne ci biir kër gi te Serigne Modou Ndiaye di jawrin bi jiite ko kon ñoo ngi suñu suñu bopp ci bés bi mais du ci soñu aussi mboole mu julliti yàlla yi ndax waacaayu safar Cheikh Ahmadou Bamba ku ne xam na liggéey bu tëdd bi nga xamante ne moom la liggéey fii ci senegal mu ne besam bi bu eggsee nañ ko ko sant nañ ko ko santale boromam sëñ Fallou Mbacké mi nag bu muy ñëwee jam ñaay ba léegi mu taxawal ko fi muy wàccaayu premier safar muy ubbite bi kon ñoo ngi ci woo góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam maa ngi siyaare mbooleem jullit yëpp di ci jiital sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mi fi nekkal sëriñ Touba di siyaare xalifa Maam Mor Jaara sëriñ Cheikh Ismaahil di siyaare sëriñ Cheikh Tedd Mbàkke mi xalifa sëriñ Baar Xuraja waaye di siyaare sunu sëriñ di sëriñ Baara Mbàkke mi xalifa sëriñ Baara sëriñ Cheikh Baara Eh, di ko siyaare mboolem njabooti Serigne Touba Xaadim Rasul yëpp di sant yàlla sunu borom di waajal bis bi nga xam ne ren mooy dixième édition ñu di ko woote fii ci jam naajo Daaru Salaam eh, mu war a tombe ak le 6 août allahu rabbi mm, ñu di ko ànd ak mbooleem jullit yàlla ci dëkk bi waaye di ko ànd ak mbooleem taalibi Serigne Touba Xaadim Rasul yi ki nga dégg mu ubbi léegi mooy jawriñ Mbay Juuf wax kàddu yu am solo ma jaaraat ci ginnaawam di ci woo ki nga xam ne mooy représenté xalifa général de Mouride Alaaji Cheikh Niang gannaaw bu ma jiitalee sëriñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Mountakha Mbacke Bachir di loxo di jooram waaye taxaw ak représentant am sëriñ Cheikh Niang mi nga xam ne mooy représenté xalifa général de Mouride te bu soxlaa bu ne sëriñ Ibrahima Mbacke taal otoom dem ci sëriñ Mountakha ñëw. di woo di sëriñ Xaadim Mbàkke di ko koy yëgal ak sëriñ Cheikh Silla ak délégué de quartier bi Cheikh Fall ak daayira yi fi nekk yëpp di ci jëtal daayira Soxna Jaara ak mbooleem daayira yi kuréelu xasaayir yëpp di ci jëtal kuréelu xidmatul xadim ak mbooleem kuréel yi ak mbooleem imaam yi ci dëkk bi ci njiital Cheikh Sadibou Sow imaam Cheikh Sadibou Sow mi nga xam ne moo jiite association imaam yi ak ki ñuy wax imaam Maane mi nga xam ne moo jiite association jàngalkat alxuraan yi Mm, di imaam Mané euh, ak njabooti imaam Ndiaye yëpp maama Keba Ndiaye ak njabootu Cheikh Moustapha Mané waaye di ci woo mboolem daayira yi mboolem imaam yi ci dëkk bi mboolem jullitu yàlla yi rawatina taalibe mm, itam li ci ki ci jiitu di daayira soppee te Modou Ndiaye di jawriñ ji ak soxna jigéen ñi ak soxna Awa mm, waaye euh, beneen daayira bi. taqoo ak ñoom muy ahbaabu Cheikhul Xadim waa kër Maam Mor Jaara te Moussa Sonko di jëwriñ ja ak mboolem ñam ko àndal ak mboolem njabootu Moustapha Fall yëpp waaye di wax autorité ci dëkk bi tam mm, di ko dara ci préfet Ibrahima Diouf bi nga xam ne moo nekk préfet de l'arrondissement euh, de Diamniadio Ibrahima Diouf ñu ngi ko koy bàyyiloo xel de ko ci invité ak mosala maire Mamadou Moulaye Gueye ak Adama Mbaye premier adjoint au maire ak Ousseynou Sow ak euh, Moussa Dabo docteur Serif Lay ak Ousmane Sow conseil municipal Omar Kambi ak ala xaritam boobu ñuy wax Alaaji Ndongo Ndongo Sarr ak Adama Mohamed Adama Ndaw Adama Ndaw conseil municipal ak Aliou Sané bi nga xam ne moom itam nekk na ancien hmm, euh, premier adjoint au de di sunu xarit te collègue gannaaw lay féete waaye ñu ngi koy woo ak Souleymane Dabo ak Babacar Wague ak mbooleem conseil municipal yi ci dëkk bi ak mbooleem autorité yi ak mbooleem dawaayir yi ak mbooleem taalibe si rawat na presse bi nag hmm, live vision ñu ngi ak TV3 euh, TV3 ak live vision euh, xam naa ne représenté nañ Jam News ak yeneen seen yëpp hmm, ak bi nekk cité yi cité des fonctionnaires euh, presse presse locale bi yëpp rek di leen teewoo waaw ak mboolem taalibe Serigne Touba yi ki ñu jiital mm, Baye Assane bi nga xam ne toog na teewaale ñoom ñëpp ak soxna Ndeye Ndiaye Fall waaye tam soxna sunu soxna yi ci daara ji itam di sox ay soxna Aïda Mbacke ak soxna Fatou Diaw ak mboolem taalibe Serigne Touba yi dégg sunu kàddu. waaye ñu xam ne itam day teel ndax xewa nawet la xewa nawet la dañoo bëgg lépp teel taalibe Serigne Touba daal 5 heures na fekk ci baas bu ñu julee sëlmal takkusaan fu ñu julee takkusaan ba sëlmal ko daal nañ taalibe Serigne Touba fekk ñu ci biir baas bi waxtaan bi nag lenn képp la mooy tàmbalee ci Serigne Touba yem ci Serigne Touba mooy cérémonie bi tàmbalee ci Serigne tuuba yem ci Serigne Touba xaaral la xaaral rasul la ci def suñu yoon newu ci ñu bàyyi ko ña ko moom waaleykum salaam wa rahmatullahi